bu mag moo am fële ca cimetière euh, Pikine fi nga xamante ni foofu sax population bi euh, faral di def euh, ab manifestation yu rëy ngir ñu yokkal leen boobule cimetière ndaxte dafa fees del foofu nag moo am laq bi nga xamante ni kenn xamul fu mu jugee fu nekk ni population yaa ngi fa Pikine waaye yaa ngi fa waaye nag mënuñu fay boobule lakk sapeur pompier yi ngi fa di jéem a def lu nu mën waaye nag mënuñ ci dara fu nekk ni dañu rek topp di di e dégâts yi li nga xamante ni nag moo euh, provoqué euh, boobule làkk kenn xamagu ko fu mu nekk nii waaye nag liñ ci mën a jàpp dafa métti loolu boobule euh, lakk fale ca Pikine fi nga xamante ni mooy wetu cimetière ca Pikine